18 ans yi doog a sëy. waaw xale yi léegi xale yi léegi xale yi doo ngay sëy nag yaa xale yi doo ngay sëy bëgg sëy rek nag dugg couple yu bees yi. Mm-hmm. laay ñoo jël nuisette nii kii ko. wante mm-hmm. mm-hmm. jeeg ji dañoo dama leen indil. jeeg ji leen bàyyi. i mbaaru kankura ah, ay seen i lan la tamit. jeeg ji lii lan la. lii sër la yaa lii sër la. ah waaw yàlla mën na lu ne. <laughs> Eh. bii xanaa bii mooy ban nag. bii mooy caabi kër gi nañ ko tuddee caabi kër gi. ah ok waaw bii de oto sax ko cee tegal. lu ne mën naa ne. ndeysaan xam nga ne baax baax yii góor ñi dañ koo bëri. te lii dafa maa métti nag ngay wóor doon nag genre ne di yàgg góor ñi dañ lay may sa papa sa yaay de. dëgg may na yëpp lañ may la terrain. te laaj leen fa fàtte ko. dëgg la may may la terrain pax yi la seen xel yi dugg dem na. dëgg la xam yii boo ko boo ko boo ko sàlloo rek te bañ koo waat. en tout cas liggéey lii moom Ah. am na ñu nekk ci chaque jour di ko di ko def. di ko def waaw kër. Ah. te amuñu leen neex. nopp waaw. waaw dafa góor yu dëgg góor yoo xam te ne waaw. xamuñu valeur jigéen xamuñu valeur jigéen. Mm-hmm. c'est ça jigéen ku ko ormaal yàlla suturaal billaay. parce que ñoo ne ma sonn ci néegu sëy lu ne la ñuy jënd. dëgg la de lu la ñuy jënd sër ñu jënd. ñu ne ma samay fer rek xale jigéen ñi dañuy lëmbal lu ne la def ci biir néegi. mais ay fay ma lamp damay mm-hmm. nelaw. Mm-hmm. nga ne fii def sa ñàkk fay de ay sëy xale yi wala jeeg ji lii li xama yii yii yii xale yi takkatuñu yi <laughs> yii nga xooj ko ci sa potu kii rek lii goowe xale yi doogu